Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon nom est Alex Chakrimi. Je travaille euh, au Croissant Rouge Turc en tant que chef des opérations euh, pour, pour l'Afrique. En tant que Croissant Rouge Turc, tout d'abord, nous souhaitons un euh, très très bon ramadan au peuple sénégalais. C'est un plaisir pour nous d'être ici. Nous sommes ici présents euh, au Sénégal depuis déjà 2020 et chaque année, et avec la contribution de nos donateurs turcs,

Et la communauté ici va accepter et notre don qui feront des doigts pour nous, pour que Allah nous facilite et facilite aussi nos donateurs qui ont, ont permis que ce programme soit euh, permis. La sélection des bénéficiaires se fait avec la coopération de notre partenaire. Donc nous ciblons d'abord les, les, les, zones les plus défavorisées et, et, les autorités locales aussi nous orientent et nous facilitent à dresser une liste dans le but de, de pouvoir... Et, cibler et, et, toucher les gens les plus défavorisés. Depuis 2020, nous sommes ici au Sénégal. Et euh, nous avons d'autres types de projets aussi. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du mois de Ramadan, mais dans d'autres projets comme l'éducation des projets de puits d'eau. Ça pourrait être ici à Dakar ou bien dans les autres zones. On pourra eh, implémenter d'autres projets selon les besoins. président de l'organisation non gouvernementale sénégalaise Union pour la solidarité et l'entraide, qui a son siège ici au niveau de son programme, son programme urbain de centre Amadou Malik Gueye. Nous accueillons aujourd'hui euh, un acte euh, symbolique, mais euh, très importante dans le cadre de nos relations avec euh, des organisations locales mais aussi des organisations internationales. C'est l'occasion donc de remercier le Croissant Rouge euh, euh, turc qui depuis des années s'emploie à aider de façon régulière euh, les populations sénégalaises, notamment les couches les plus démunies. Aujourd'hui, c'est euh, un appui alimentaire pour euh, secourir certains qui sont dans le besoin et qui sont en train de traverser des jours difficiles dans ce mois de Ramadan. Donc c'est un geste symbolique, mais de, porte, de haute portée sociale que nous apprécions à sa juste valeur. Et c'est dans ce sens que nous avons accepté que la distribution se fasse ici dans nos locaux pour renforcer nos relations mais aussi pour aider les populations qui sont dans le besoin. ñëpp ci teewaay bi waaye tamit ñu ngi sargal tamit sénégalais yi euh, ci weeru koor bi ci tamit li leen yàlla defal ñu génn ci élection yu mucc ayib euh, jàmm ak dal nekk ci réew mi ñaan yàlla yàlla sox ci biir loolu sox ci biir réew mi. Euh, jotaay bi nag mooy niñ koy adaw di ko defee léeg-léeg ak suñu partenaires yi mooy ndimbal goo xam ne dafa jëm ci ñi nga xam ne seen néew doole ay néew du doole lañu rawatina jamono joo xam ne jamono xat-xat la. Euh, mooy Ramadan euh, loolu ñu ngi ko jëmale ci nga xam ne euh, ñu fii ci Ndakaaru wala tamit ci région yi te nag ñu ci fii ci centre Amadou Malick Guèye délégation turque baa ngi fi directeur centre baa ngi fi ak yeneen kilifa yu fi teew ndax loolu ñu jottali ko ñu ne ko askan wi waaye tamit ñu tàllal loxo ñeneen ñi Sénégal yi nga xam ne mën nañu ñu dimbali yi nga xam ne mënuñu ñu bañ a doylu rek ci li nga xam ne mooy jóge ci biti. dañuy dimbalante ay kuréel. benn jàkk boo xam ne xam nañ ne dafa organisé wu ñu yónnee ko liste ñu utal ñu fukki nit wala ñaar fukki nit wala téeméeri nit ci ni mu xamee wala benn organisation bu mel na USAID bi nga xam ne fii la ñu nekk nii tey ñu jox ko loo li nga xam nag li ci des mooy dafa am nit ñi nga xam ne xam nañu ñu ngi yëngatu ci waar wi léeg-léeg ñu ñëw déposer seen liste ay doléance ay demande ñu sélectionné ko balaa kooru Ramadan ñu daal di koy génne bu soobee yàlla su jotee ñu woo ñooñu def ay liste établir ko ñu woo leen seen numéro téléphone ñu ñëw ñu jël si ko mooy ñu ngeen di gis ñii fi toog di xaarante. dafa am ñaari fànn dañuy tuddee aide occasionnelle mooy benn jamono ñëw na ramadan ñëw na tabaski ñëw na joxe ay xar wala joxe ay yàpp ak yu joxe euh, dund waaye am na beneen ndimbal boo xam ne moo gën a dëgër mooy gas ay teen ay forage tabax ay dispensaire ay école loolu tamit am lu ñu ci def am tamit lu ñu ci sumb ci kanam tuuti bu soobee yàlla daañu ko jéem a eggale ci ndimbalu yàlla. programme bi ñu nekk nii dem na ci ñeenti juróom-ñeenti téeméeri famille la ñooñu jagle ndimbal yi ba ñu ko xaymaa dem na ci diggante vingt cinq trente millions CFA mooy programme bi nga xam ne moo fi nekk am na yeneen programme yu ñuy def ci yeneen gox.